wa dakdakati aljibaalu li haybati wa sabbaxa arraadu bi xamdi walmalaayika min qiifati allahuma bi asmaa'ika albahiyati wa shicaacati alcarshiyati walkalimaati alrabbaaniyati wa talaasimi alcabraaniyati wal aqsaami almalakutiyati wal asraari alsaryaaniyati wa tasaabiixi alyunaaniyati ilaahi bi rafiici alsamaa'i wa quwwati alardi wa haybati alshams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 waaye di jaare it ñi nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg rek lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombal ñu ngi ñaan sunu Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla tàppi xool yi ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li wasilahil karim euh, mbokk yi ñu ngi ñëw ànd ak yéen kala aadati comme niñ ko daan defee altine bu jot ci waxtu yi waxoon nañ leen fi ñu toll woon ci xissa bu rëy boobu muy xabaar bu rëy boobu amoon ci eh, waa jooju nga xam ni moomoon na àdduna sharqan wa xarban ngir doolem ju bari muy iram zatil imad doole je doole ju bari ji moo tax alquran tuddoon ko ba ne iram zatil imad allati lam yuxlaq misluha fil bilad mi ngi noonu iram nag mbokk yi waxoon nañ leen fi ñu toll woon ak moom waxoon nañ leen nit wa ala kulli xaal ba mu jamono ba mu bokk fekkee ko jamono la boo xam ne bi buur yi dañ daan daan xaaj par xaaj day am gouverneur am préfet am ambassadeur ñoom ñëpp ku ci nekk dañ leen di affecté ci ay réew yoo xam ne yi Euh, ci réew yi nga xam ne yi ñoo nekk ci banu Israil ñoom ñëpp ku ci nekk ñaam fuñ la yónni nga toogal fa Iram Zatil Imad moo taxit ba mu nammee tabax chatom bu rëy boobu buur yooyu yëpp la yónnee télégramme ne leen fu waay mën a ne réew ma nga nekk ak réew ma nga bokk nanga fexe ba ngeen collecteel man lépp lu fa yaaquut lépp lu fay fidda lépp lu fay zahab ak zabarjet muy xeeti wurus yooyu nga xam ne daanaka ñun suñu réew mi am na fi am na yu fi am am na yu fi amul ñu collecté ko yépp def ko ay camion def ko ay conteneur indil ko Iram Zatil Imad sans compter nag euh, bâtiment yi nga xam ne yi moom la tabaxlu woon ci biir parce que dafa déggoon yàlla di wax naan jannatan tajri min tahtiha al anhaar xaalidina fiha mu ne ajjana jooju yàlla décrire wax ko ci alquranul karim bu mel noonu daal man iram moom laa bëgg tabax ci kaw suuf su ko defee ku ma gëm ma dugal la ci muy sama ajjana ci kaw suuf ku ma gëmul doo ci dugg iramangoog ak xalaatam buur yi nga xam ne ñoo jamononte woon ak moom ñu jàppale ko ca loola ndax mu taxaw ñu tabaxal ko château bu rëy boobu nga xam ni château bi toog nañu e, ñeent fukki weer di tabax château bi te château bi parewul lépp lu château war a am rek château Iram am na ko ci dex jamaa or eh, xaalis lépp lu ñu yaakaar ne rek doomu aadama war na ko mën a bëgg muy bànnee xam iram def na ko ci biir sato bi fleur yi gën a rafet la dajale dugal ci xalal ko ay yoon ndox mi di daw waaye xalal ko ay yoon def ko ay kuréeli kuréeli kuréel ci biir château boobu tuddee kuréel yooyu ay tur ne fii mooy béréb sàngam fii mooy béréb sàngam ñi nga xam ne ñi ñoo ma gëm topp ma bu ñëwee fii laa leen di dugal ñi nga xam ne ñoo ma gën a gëm ma dugal leen fii samay secrétaire ma dugal leen fii samay directeur samay ministre kenn ku ci nekk samaan wa taatan nga topp ma te nangul ma dinaa la jox appartement ci biir sama àjjana ji ma tabax ci kaw suuf noonu la ko Iram doxale woon ngir rek bëgg a nekk zaim malikan aziman ala washi l ard bëgg nekk rek buuru boo xam ne bi li mu def kenn mosu ko def wa kaana yuridu an yatruka waraahu alaamatan ay qissatan la tunsa ila yawmi ddin bëggoon rek bàyyi ci ginnaawam nettali boo xam ne bi wa ala kulli xaal kenn du ko fàtte ba ila yawmi ddin ba mu tabaxee château ba nag mbokk mi ba yàlla def château ba pare mm, dara desatul lu dul rek mu joxe ndigal ñu inauguré château ba mu war ko jëfandikoo dal di toog ca palais bu rëy boobu ci biir palais ci biir château bi ak na mu defaree bërëb ba mu waroon a toog appartement ba na mu ko defaree rafet ga mu rafet leeraay ga fa nekk or ya fa nekk jamaa ya fa nekk ak ni mu ko wëree mu nekk buur boo xam ne bi daf koo xaalalan yoon boo xam ne bi fu waay mën a jógee ci biir château bi mu ngay jàkkaar lool muy yoon bi jëm mubasharatan directement ci royaume iram nit boroom xam-xam yi ne nañu nit mënul nettali château iram ba dab misaal ma waaye làmmiñ it lott na ci mën a wax château Iran na mu meloon ci rafetaay ak rëyaay ak yaatuwaay ba mu ko defee ba pare nag ba dara desul lu dul war a toog nag joxe ay ndigal ñi ko gëm gëm ko topp ko ñi nga xam ne ñi ñoo ko war a toppit ku ci nekk mu xool nu muy def ak yow ndax loolu la diggee woon teen ak ñoom ne woon ne leen suma paree château bi képp kuy sama directeur di sama ministre di sama euh, serviteur nga xam ne daan nga dox ci samay waaw euh, lu ma la sant loolu ngay def dinga ci am cër bu rëy ay gaa ñi gëmoon ko lool nag moom Iram ku ay nitam gëmoon la ndax jan àjjana jooju mu nar a tabax ci kaw suuf waaye ba mu ca paree nag mbokk mi ba dara desul lu dul toog ci biir château bi ba dara desul lu dul dund ci biir château bi ba dara desul lu dul xool ñi ko neex ak ñi nga xam ni bëgg na leen a sargal mu dugal leen ci biir sato bi yàlla ne ko déedéet loolu duma la ci bàyyi yàlla ne ko man samay mbir kenn du ko toppandoo laysa ka misli shay'un wala yakunu ka misli shay'un man yàlla ki duma mel ni kenn te kenn du mel ni man samay mbir du mbir kenn te du nekk mbir kenn ba ilaa yàlla defal ko lu yéeme yàlla xar suuf si màbbal sato bi sato bi di dem di dem di wàcc di wàcc ci biir ci biir suuf ba jeex tàkk yàlla tëj suuf si kooku mooy Iram zaatil imaad nee na rëyaaya ba muy wàcc ci biir suuf bañu di ko tëj yàgg na lool ci yoon wi ba laata muy jeex ba kenn gisatu ko yàgg na lool ngir réyaay bi ak guddaay bi moo tax alxuraan di ñu ko wax ne ñu iram muy iram zaatil imaad boroom tabax bu rëy ba li mu ci jublu mooy boroom shato bu rëy ba château bi nga xam ne bi yàllaa ngi wax naan euh, lati lam yuxlaq misluha fil bilaad lu mel ni château boobu kenn mosu ko tabax ci kaw suuf rëyaay ba amul ci kaw suuf te dootul am Euh, dayo ba na mu toll woon dootul amati la mu ca def ci ay xéewal dootul amati fenn ba ila yawmi diin moo tax alquran indil ñu ko nañu iram zaatil imaad allati lam yuqlaq misluha fil bilad irama ngoog baada euh, intihaai hada al qasri al azimi ginnaaw bi yàlla wàccee sato bi ci biir suuf ñu toog sanawatin adidatin adidatin ay qurun ay siècle ba ñëpp fàtte iram zaatil imaad ñëpp xam ne iram deena sat ba màbb na intaha amru iram zaatil imaad mbiram jeex na ñëpp fàtte ko mu am benn bés comme niñ leen ko waxe woon waa ja nga ji moom moo doon seet giléemam giléem gi réer ko mu di ko topp di ko topp di ko topp ci biir misra ba ñëw fekk fekk benn pax boo xam ne bii daanaka du pax daanaka xóot na waaye du pax nee na mu teg tànkam yaakaar ne giléem gi dafa war a daanu foofu mu teg tànkam rek tànk bi tarxiis mu dugg ci biir daanu ci biir pax mi dal di jàll ci biir ba mu jàllee ndekete pax moomu jàll mooy pax mi nga xam ne mooy sato iram bi daan woon mu dugg ci biir yàlla may ko ndimbal ndimbal bi mooy yàlla may ko mu gis château Iram bu rëy boobu ak li ci nekk nee na mu dugg daldi xool bunt yi bunt yëpp tëju mu yaakaar ne bunt yi de eh, kenn du ko mën a tijji ci àdduna ndax seeni rëyaay te amul ay caabi mu mel ni dafa ñëw rekk laal bunt bi bunt bi ubbeeku mu dugg ci biir gis leer goo xam ne gi musu ko gis fenn leer gi du làmp waaye jamaa yi melax oor yi melax ci biir château bi moom doole jee bari ba boo boo fa duggee da yaakaar ne sax ay projecteur lañ fa taal nee mu dugg ba mu duggee ba ci biir gis li fa nekk ci or foofu la gisee benn àll boo xam ne bi àlluwa ba lañ ci bind rëy na yaatu na ñii ne nañu euh, qissa euh, iram lañ ci bind ñii ñine ne sirrun min asraari qasri iram ñii ñi ne ismun min asmaai sirril euh, sirril qasri ak yu mel noonu ku nekk am nga noo ko gisee boobule àlluwa waaye daal ak lu mën a am waa jooju mbokk mi jël na alwa boobu jël ci or bi jël ci jamaa bi jël ci xaalis bi def ko ci benn mbuus génn ak moom waxoon nañ leen ko ci émission yi passé yàlla nattoo ko mu dem ci benn waay waa joo xam ne ji ala kulli xaal jaaykatu or la jaaykatu urus la jaaykatu jamaa la mu won ko mbir mi waa ji xool ko ne ko sëriñ bi mu ne ko ah mu ne ko foo jëlee lii mu ne ko ah fi ma ko jëlee de mënul ma la ko wax xoolal ma daal ndax dama koy jaay su fekkente ne man naa ci am li mu bëgg ci xaalis ma jaay ko suma ko mënul amit ma jëlaat samay mbir yóbbu waa ji ne ko toogal mu toog mu ne ko maa raaytu misla hada zahab fi dunia wa maa raaytu misla hadihi lyaqut fi dunia nee na musul gis or bu mel noonu musul gisit jamaa bu mel noonu nee na ko mu daal di toog mu yónnee ndaw ne ko demal ci Muawiya moo doon buuru dëkk ba nga waxal ma ko dagg ne ko man de gis naa fi lu yéeme te aw ma kàttan gu ma ko jëndee ndax dina ko yitteel mu ñu dem ci Muawiya wax ko ko ne ko daal dafa benn waay boo xam ne bi indi na fi or jamaa euh, bu bari te kenn xamul fu mu ko jëlee waaye la ma koy jaayee daal cher na cher goo xam ne am nañu yaakaar ci ne yow rek yaa ko mën a jënd Muawiya ne indi leen ma ko ñu indil ko waaj ji yóbbu ko ci château Muawiya bañ ko fa yóbboo Muawiya dalal ko ne ko tafaddal euh, wajlis anta fi baytik anta fi daarik ndax arab dañoo bokk ci seeni xarbaax euh, ak seeni teraanga boo ñëwee dañ lay dalal dalal la ganale la tuuti waxtaan ak yow door la wax nag sabab bi nga xam ne moo tax ñëwoo la Muawiya dalal ko teral ko ormaal ko waxtaan ak moom ba pare nag ñu dooru dugg nag ci li nga xam ne moo tax Muawiya woo ko man de damaa dégg ñu ne dangaa yor or ak jamaa mu ne ko xaqan tabaan hakada mu ne ko anamu mu ne ko mi ngi nii mu génnee ko jox ko won ko ko Muawiya xool ko daal di yéemu ci mbir mi ne ko fa waa ajaban maa raaytu misla hada qattu fi xayaati Muawiya ne ko musuma gis lu yéeme nii ak lu doy waar ni ana foo jëlee lii mu wax ko mu ne ko ndax xam nga béréb boobu bérébu kan la mu ne ko déedéet mu ne ko tabax bi xam nga turu kan lañ ci bind mu ne ko déedéet mu ne ko xam nga ñaata at la fa nekk mu ne ko déedéet xamoo ko ko fa sanc mu ne ko déedéet mu ne ko kon dinaa la jox alal yu doy nga bàyyil ma ko fi ndax lii jënduma ko sax pour bëgg ko jënd waaye dama ko jënd rek pour gëstu ku ko fa ku kan moo ko fa def ak lu tax mu am fa ak ban sabab la fa ñëwee mu jënd ko ci loxoom téye ko gis nga mbokk yi yàlla ay mbiram fu neen la koy jaare mu téye ko ci loxoy waa jooju téye ko daldi woo yi ak ulama u jamia ulama i yi ñi nga xam ne ñi ñoo bokk naan teg jamono moom tey boroom xam-xam mu woo leen ne leen maa ra'yukum fil amri wax leen mbir mi nu mu tëddee wax laaj leen lu ci seen xalaat gaa ñu ne ko ah mbir mi de yéeme na pax moomu de ma sami'na zalika zalika al makaan qattu fi xayaatina musuñu ko dégg fenn te xamuñu kan moo ko fa def Muawiyat ne leen lu ci pexe nag ana lan ngeen yaakaar ni yéen yi nga xam ne yéenay samay secrétaire di samay serviteur lan ngeen yaakaar ne mooy pexe bi ñi ne ko am na benn waay bu ñuy wax kaabul axbaar kooku daal yàlla may na ko ci xabaar loo xam ne lii taafa alaalam wër na àdduna te xam na lépp événement yu jëkk yi xew yépp xamoon na leen te nga yónnee ci moom woolu ko su ñëwee nga laaj ko wala boog ñu laaj ko xabaar bi naka la tëddee mu daal di yeble ay ndaw jox leen ay fas ñu war ay fas daal di jubal ñu daldi dawal seeni fas ba ca kaabul axbaar ba ñu ñëwee wàcc dugg ci këram mu dalal leen ne leen tafaddalu agsi leen fii seen kër la maa baalukum ay maa xaajatukum ana lan mooy seen yitte ñu ne ko Muawiya daal moo ñu yónni innahu yaxtaaju ilayka li xaajatin ma itte woon na la te am na ci yow soxla lool nee na ñag buñ la fi bàyyi na nga ànd ñun ndax soxla bi da ko yitteel Muawiyatu war fasam ànd ak ñoom euh, Kaabul Ahbar war fasam ànd ak ñoom jëm ca Muawiya ba ñu demee baag ñu daldi agsi Muawiyatu dalal leen ne leen bàyyi leen ma nag mën ngeen a dem ngeen bàyyi ma ak Kaabul Ahbar ñu waxtaan mbokk mi mu ngi noonu Kaab daldi toog ak Muawiya Muawiya ne ko shukran li ma ji ika ñu ngi lay sant ci teewaay bi ak ñëw bi di la massawu coono ndax dama am benn aajo boo xam ne bi yow rek yaa ma ci mën a gindi yow yaa ma mën a wax kay fa ana nu mu tëddee ak lan moo ko sabab euh, te bëgg naa xam fu mu jógee ak kan moo ko fa def ak naka la fa dikkee kaabu ne ko Euh, loolu lu mu doon mu ne ko dafa am benn waay boo xam ne bi dafa indi or bu doy waar ak jamaa bu doy waar te nee ne daf ko jële ci benn béréb boo xam ne bi da doon dox rek daanu ci biir te xamul euh, nu mu tëdde ak kan moo ko fa def ak kañ la ko fa def mu yéeme lool euh, nee na ba mu ko ko waxee kaabu daldi dallu ba si yàgg ne ko kooku de su ma juumul te xam naa ni ni ma la koy waxee noonu lay tëdde tabax boobu ki ko tabax kenn la mu ne ko kan la mu ne ko iram zaatil imaad moom moo tabaxoon tabax ba ñu ko tabax shadid ak shaddaat ci lañu bokk te ñooñu njaboot lañu ci Iram moo doon ñaari doomam yu nga xam ne yi moom la amoon ñoo ko doon jàppale ca tabax ba wax ko kañ lañ ko fa def ak kañ la fa am wax wax ko ba wax ko dimension château bi na mu toll woon eh, ba mu ko ko waxee nag mbokk mi Muawiya sant ko gërëm ko ci leeral gi mu ko indil waaye it sas na ko beneen sas sas bi mooy bëgg na ñu ubbi bunt bi bëgg na ñu ubbi biir sato bi dugg ci xool lan moo ci nekk ak kañ la fa nekk ak ci ban jamono la fa nekk gis nga mbir maa ngi noonu muy lu yéeme lool ndekete yàlla yenn saay day indi misaal moo xam ne boo ci jógee mën naa jur leneen ak leneen ma eh, kaabul axbaar daldi waxtaan ak ay nitam moom it ñu waxtaan waxtaan wu yaatu ba ñu waxtaanee ci mbir mi ñu gis ni daal kon war nañu mën a dajale ay nit yu bari jox leen ay jumtuwaay ñi mën a dugg ci biir château bi ñu duggee ci biir château bi fexe ba génnee li ne ci biir sato bi ndax mu doon loo xam ne lii dina jëriñ doomu aadama yi waaye ñi xam xaqan ana lan moo nekk ci biir sato bi ndax ñi ñëpp mën ci jëriñu kaabul axbaara ngoog ak ya ku ci nekk ci ñoom ñaar yaa ngi tëral say pexe pour jéem a xool rek nu ñu mën a def ba génnee li ci biir sato bi noonu ñu léegi pexe bi daal mooy nañu recruter ay nit yu bari fay leen xaalis bu bari ñu gas mbir mi lu tollook weeru yàlla lu tolloog weeru yàlla ñuy gas ngir am bunt am yoon bu ñu mën a àggee ci château bi ak nit ñe nañu bari woon ëpp nañu junni nit nga xam ne kon mbiri iram tuutiwul junni nit di gas aw yoon pour mën a am nu ñu def bàgg ci château bi ñu di ko def ay jamono yu yàgg mënuñu fexe ba jot ci château bi ay taayewuñu toqiwuñu ñu nekk ci rek di gas di gas ba keroog bi ñu jàkkaarloo ak bunt bu mag bi kenn ci ñoom amul fitu ubbi bunt bi kenn ci ñoom amul fitu jege bunt bi xaw fan an ndax niñ ko décoré woon dafa yéeme bunt bi kenn mënu ko gis di ko ñeme ñii ñi ne ay jinne ñoo ko defar ñi ñi ne ay shayatin ñoo ko defar ku ci nekk yaa ngi joxe xalaat bi nga yaakaar ne euh, loolu la war a doon ñu dem ci buur bi nag Muawiya daal di ko koy wax ne ko gas nañ yoon ba yoon ba ubbeeku jàkkaarloo nañu ak bunt bi waaye ñemewuñu laal bunt bi mu ne leen lu tax ñu ko bunt bi daal dafa mu Muawiya ñëw ba jàkkaarloo ak bunt bi xool bunt bi lu yàgg def ya muy def ñaan ya muy ñaan daldi jël loxoom teg ci bunt bi bunt bi ubbeeku mu dugg mu duggee ne gaa ñu topp leen ma ñu topp ko mu dugg ci biir château bi château bi man nga ci dox ci biir sata bi weeru yàlla yoo xam ne yi doo jeexal commencement bi ak jeexalukaay bi weeru yàlla yoo xam ne yi ci biir dex ngay wàcc jaar ci biir ndox jaar ci biir xunt jaar fu am or jaar fu am jama ba ba ngay àgg ci palais château bu palais iram bu rëy boobu nga xam ni fa mu ko làq sori na mbokk mi ñu bàyyi ci xel kon mi ngi noonu kooku mooy iram zaatil imaad allati lam yuqlaq misluha fil bilad ñi bàyyi ci xel kon xam naa ni incha allah eh, dañ koy yemale fii incha allah baalte ne bii di ñëw ñun ak yéen dinañu ànd ba jaar ci asxaabu ras ñëw ci ibra ñëw ci Muusa eh, ak ña ca topp ak ña ca topp ulaika al anbiya waaye dinañ leen wax Euh, kayfa xaalu yi ana yonent naka la war a mel lan mooy fil xaqiqati nabiyun ursila yonent na muy mel ak naka lay taxawe ak naka lay ñëwe dinañ ci waxtaan ak yéen incha allah ci émission yi di ñëw mbokk yi ñu ngi jégalu xat-xataayu waxtu wi di ñaan sunu Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm waaye ki fi jóge it di Vincent di sunu lépp yàlla na ko yàlla xare aljanna te yeexiñu bi jaahi nabil karim wa sallallahu wa sallama ala nabiyina wa xabibina wa rasuli wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma rabbi rabbi iftax lana ilahi wa anta xayru lfatixin wansurna ilahi wa anta xayru nasirin wa xaqiq lana amalana ilahi wa tamim lana niyatana waqdi xawaa'ijana zaahiran wa baatinan innaka ala kulli shay'in qadir allahuma rabbi laa tuxayib rajaa'i wa rajaa'ana wa rajaa'ahu wa rajaa'a jamii almuslimin allahuma rabbi laa tuxayib rajaa'i wa rajaa'ana wa rajaa'a jamii almuslimin wa salli ala sayidina muhammad salaatan taftax lana biha ababa rida wa taysir wa tuxliqu anna biha ababa charri wa taasir wa taqdi lana biha jamii alxawaa'ij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira ya rab yaa ilahi anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin anta nurullahi fajran jita ba'da al-usri yusran rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya